ci nu ñuy liifantoo te mooy ijji mën a xàmmee araf yi ba nga xam ni boo yore sa kaamilu alquran da danga mën a jàng maanaam nooy mën a liire alquran liir bu mucc ayib kon tey <coughs> ci première année daara moderne muy at bi njëkk ci daara alquran yi ñuy tuddee daara moderne euh, ki ciy ànd ak yéen di seen mbokkum daara sëriñ Mor Sarr jiite itam daara kon tey suñu jubluwaay ci bind bu njëkk bi mooy nga xool araf yiñ fa fas yéene ànd ak yow nga xàmmee ko bu baax a baax ijji bokkut ak njàng njàngum alquran nga xam ni dangay ngay mokkal di tari ijji da nga mokkal gaa di tari waaye tari bi mooy xàmmee dafa am lu ñuy tudde njàngum gumba ah mën a tari rek te li ngay tari bu ñu la ko wanee doo ko xam lii nag mooy tax ba nga mucc ci loolu buñ la doon jox misaal doomu aadama yi ñëpp ay nit lañu waaye kenn ku nekk danga am tur woo xam ni moom lañ lay wooye pour ñu xam ni yow yaay diw nit kooku itam dafay sol ay yére léeg-léeg mu sol lu mel ni tubéy wala mbubb wala mbaxane léeg-léeg mu sol ñaari tubéy wala ñaari mbubb loolu mooy masque yi léeg-léeg mu am benn masque ci kaw benn masque ci suuf ñaari maska bu ko defee loolu looy xàmmee la kon nga bàyyi ci xel bu baax a baax suñu jubluwaay tey ci bind bu njëkk bi mooy nga xàmmee araf yii muy alif baa taa saa jiim xaa xoo aywa kon xool leen bu baax te déglu ma bu baax waaw xaraf bu ne itam dafa am nuñ koy tuddee nga xam ni araf bi nii la tudd léegi ya ca soqeekoo yépp même araf yi ñooy bokk tur man ni ma ko waxe woon rek mbubb yi ñuy sol ñooy wuute kon xoolal bu baax te bàyyi xel ci li ñuy tuddee maxaarijul xuruuf maanaam xaraf bu ne niñ koy jànge loolu dafa am solo ci langue yépp ci kàllaama yépp muy français anglais arabe ci arabe buñ la ci doon jox misaal rek xam nga doomu aadama xamalut boppam dara mënalut boppam dara tey mën na laa jox benn rendez-vous ni la incha allah suba ci ñetti waxtu bu trois heures jotee mooy quinze heures danaa fa ñëw mooy bu neexee yàlla bu soobee suñu boroom incha allah yaa ngi déglu cha léegi nag bu ne insha allah insha yaa ngi dégg insha allah bu subaa danaa fa ñëw léegi loolu mi ngi naan bu naqaree yàlla te gis nga li leen wuutale mooy fi nga waroon wax shaa ak fi nga waxee saa shaa saa kon dafa am solo lool lool xaraf bu ne ngay wax ko niñ ko war a waxee niñ koy prononcé nga góor góorlu ci bu baax tàggatu ci bu baax bul jàpp ni dafa jafe rek man mag laa Euh, lii mënuma ko goneek mag ñoo ci yem boo ci tàggatoo def ci yitte rek day mujj yomb doomu aadama léppam lool la lépp looy commencé rek soo ko mënut day jafe ci yow mais boo góor góorloo rek day daal di mujj yomb kon déglul bu baax te xool aywa muy yéen dongo yi jàkkaarlook man aywa alif baa taa saa alif baa taa saa alif baa taa thaa aywa xoolal bu baax te déglu bu baax jiim xaa xoo jiim xaa xoo jiim xaa xoo aywa xool leen bu baax ci li ma doon jàng sànq fii dañoo bëgg nga xool araf yi bu baax xàmmee ko bu nekkee ci commencement baat bi ak bu nekkee ci digg baat bi ak bu nekkee ci bindu baat bi ci mujjantalu baat bi même araf bi la mais écriture bi mooy niñ koy bindee mooy wuute waaw kon euh, fii yéen a war a wax ma dégg gis nga ko araf yi yii jàngoon nañ alif baa taa jàngaat jiim xaa xoo léegi nag moom lañ leen indil nii pour ngeen xool ko bu baax xàmmee ko waaw léegi mën naa leen cee jaaral benn yoon rek pour ngeen bàyyi ci xel bu baax alif gis nga ni muy mel alif ah day mel ni benn yat wu taxaw rek da koy xool baax nga xàmmee ko gis nga baa bu nekkee ci njël njëlbeenu baat bi ci commencement baat bi gis nga niñ ko bindee cat bi muy am ak benn tomb ci suuf taa tamit noonu la ñaari tomb lay am ci kaw gis nga ko ak niñ ko bindee saa tomb lay am ci kaw gis nga niñ ko bindee nga ñëwaat alif ah gis nga ko bu dee dafay nekk ci eh, diggu baat bi itam gis nga niñ ko bindee amul ak soppeeku nga ñëw baa gis nga baa bu njëkk bi ak baa bi wuute na am na benn cat fële amaat benn cat fii mais gis nga ba tey benn tomb lay am ci suuf taa ba tey ñaari tomb yi newoon ci kaw moo ci nekk mais gis nga niñ ko bindee saa ba tey ñetti tomb yi mu amoon moom la am ba tey mais gis nga niñ ko bindee ni mu wuutee ak bu njëkk bi nga ñëwaat alif bu nekkee ci mujjantalu baat bi gis nga fii am na ak wuute ak yi jiitu woon baa boo xoolee ba tey même tomb bi la ci suuf benn tomb mais gis nga ba tey wuute na taa gis nga ñaari tomb yi ba tey mais niñ ko bindee wuute na saa ba tey ñetti tomb yaa ngi noonu ci kaw mais ba tey bind bi wuute na kon mi ngi nii lii nag danga koy xool xàmmee ko ba foo gis téere boo yor wala table bu ko bind rek nga xam ni euh, baa ba ma jàngoon wala taaba ma jàngoon wala alif bu ma jàngoon mi ngi nii nga xam ne danga koy xas xàmmee mu jeex du looy mokkal tari waaye looy xool xàmmee la aywa kon wax leen ma dégg waaw wax leen ma dégg naa wala ma tànn ci kenn mu wax ma dégg tey maa ngi tànn benn ndongo bu ñuy wax Mouhamed Lamine ak ca waxal ma dégg yéen ñi ci des déglu leen bu baax li muy wax aywa mhm. aywa saa kenn du wax saa kenn du wax saa saa boo xoolee gis nga sama catu làmmiñ bi ni muy génne as ngelaw su woyof saa saa ngelaw su woyof mooy génn saa boo nee saa rek baaxut saa saa aha continuel aywa taa na leer taa am na beneen araf wuy ñëw woo xam ni mook bii bokku nuñ leen di bindee mais boobu kenn du wax taa too too kon fii doo wax too mais taa taa da koy sewal taa aywa continuel mhm. mhm. macha allah macha allah barakallahu fiik ya muhammad kon na ngeen ci bàyyi xel yéen ñi ci des aywa waaw ba tey xool leen bu baax biit ma jaaral leen ci benn yoon rekk kon bi ko jiitu woon ci alif ba bu nekkee ci njëlbeenu baat bi wala ci digg bi wala ci mujj gi même niñ koy jànge ñooy bokk mais mbind mi rek mooy mbindin mi mooy wuute aywa déglu leen xool leen bu baax ndax ngeen xàmmee ko jiim xaa xoo hmm? bañ a wax jim am na ñoo xam ni jim lañu wax jim jim hmm, hmm. jiim jiim xaa xaa xaa doo wax aa aa xaa gis nga xoo foofu doo wax xaa wala nga ne xoo uh-uh. mais xoo xoo mm-hmm. ngeen bàyyi ci xel bu baax xoolal bu nekkee ci digg bi ni muy mel jiim xaa xoo jiim bu nekkee ci mujjantalu baat bi jiim xaa xoo mhm. aywa kon wax leen ma dégg wala Muhammad mi waxoon sànq na waxaat ma dégg yéen ñi ci des ngeen xool ko bu baax te déglu ni mu koy waxe aywa bismillah aywa jiim mhm, na leer mhm. aywa mhm mhm macha allah ngeen bàyyi xel bu baax li ma leen di wax waaw macha allah aywa kon fii nag daanaka mënees naa wax ni tari la fii dañ koo jaxase boo xoolee araf bi njëkkoon a jàng mooy alif fii alif jiituwu fi liñ fi def nii yépp jàngoon nga ko léegi dangay wax ma dégg waaw buñ noppee dañ koy jaxase comme nii waaw bu ko defee loolu mooy nekk tari bi waaw foo gis rek ñu am luñ ciy junj rek nga daal wax araf boobu ma dégg aywa araf bi njëkk lan la mhm. baa mhm. aywa mhm. macha allah mu ngoog aywa ñu jàll ci bi ci des aywa xool leen bu baax fii it dañ koo jaxase da tari dangeen di tari aywa waxal ma dégg araf bu njëkk bi ban la waaw mhm. Mhm. macha allah gis nga jiim bu nekkee ci mujjantal baat bi ni muy mel yaa ngi xool baax xaa xaa macha allah macha allah tabaarakallah léegi nag yéen ñépp da ngeen jël seen big ak seen kaye kenn ku nekk na xool li jàppandi ci moom rek big wala kaye wala bu dee fi nga nekk àlliwa ak xalima ak daa moo jàppandi ci yow nga jël ko wala bu fekkee kere ak ardoise moo jàppandi ci yow nga jël ko gis nga araf yi nga jàngoon alif baa taa saa gis nga diggante ñaari tomb yiñ def dangay jël alif nga xool ni mu mel nga bind ko foofu ci diggante ñaari tomb yi kon boo xoolee fii ligne bu njëkk bi muy bind bu njëkk bi foofu war nga koo bind ñetti yoon lu mu néew néew nga ñëw ci baayit nga def ko noonu nga jël diggante ñaari tomb yi moom it nga xool bu baax niñ ko bindee ci ñaari cet yi cet bu njëkk bi cet bu mujj bi ak tomb bi ni mu nekkee ci suuf nga bind ko ni mu rafete noonu nga fexe bind bind bu mel noonu bindin bu mel noonu nga jëlaat taayit nga def ko noonu nga jël saa nga def ko noonu waaw parce que da boole jàng ak jàng mën a liir waaw mën a liifantu waaye nga jàngaale itam teel a commencé jàng nu ñuy bindee xaraf bu ne nga xam nuñ koy waxe xam nuñ koy bindee aywa xool leen bii itam moom it ngeen bind ko kon niñ leen ko waxee woon ci bee rek ngeen jël seen kay ak seen big wala la jàppandi ci yéen rek xoolal jiim ni mu mel maanaam niñ ko def cat bi commencé nii def nii def nii ñu daal def benn tomb ci suuf nga xool xaa ni ni mu def nii def nii amul benn tomb nga xool xoo ni mu def nii am benn tomb ci kaw boo xoolee ñoom ñett ñetti araf yi yépp ñoo bokk nuñ ko bindee lu leen wuutale mooy jiim dafa am benn tomb ci suuf xoo am benn tomb ci kaw xaa amul tomb maanaam xaa daal moom solut yére yaramu neen la def kon danga koy xool bu baax xàmmee ko lii boo ko liñ la wax boo ci bàyyee xel bind ko rek da koy daal xàmmee mu jeex foo ko gisee te ñu bind ko rek danga koy daal di xam ni lii mooy jiim lii mooy xaa lii mooy xoo aywa ngeen bind ko mbindin mu rafet aywa léegi-léegi nag boo déggee kuy jàng naan alifun baaun taaun thaaun jiimun xaaun xooun am na ñuy jànge noonu bu boobaat bu mu la jaaxal mooy alif bu nee alifun mooy alif bi nga jàngoon rek bu nee baaun mooy baa bi nga jàngoon rek comme loolu it nga bàyyi ci xel bul dégg kuy jàng alifun baaun rek nga ni kii ni muy jànge baaxut wala day yàq euh, niñ koy jàng mais méthode bii nii mooy li gën a wér mooy li gën a baax alif baa taa saa jiim xaa xoo macha allah macha allah barakallahu fiikum subhanaka allahuma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk macha allah yal na yàlla defal leen tawfiq te defal ñu ko